jigéenu jàmbaar ga kat yi ñoo fi ay suba di liggéey si say bët xonk sa xol mais mësul feeñ ci liggéey bi. c'est Nicole. Toch s'il vous plaît yow ak Bintu ñëw leen ngeen ñëw jël bagage yi s'il vous plaît. ah ah agent ah bu fekkee da ngeen di tourner film da ngeen ñu koy teel a wax balaa ngeen jël suñu image ñun xam nañ lépp nu <laughs> moom Chérif mii moo fi taxaw taxawaayu Nasser El Khelaïfi moo fi indi Messi ak Neymar ci biir kër Mère ba. ah